permettre ñu daal di euh, faram fàcce mais également décortiquer actualité bi ci ni mu gën a euh, di ci ànd aussi ak suñu ay chroniqueurs di jaajëfal ñëpp di gërëm ñëpp di amoon mbégte contentement di jaajëfal les sénégalais de la diaspora ci ànd nga xam ne ñu ngi wéy di ko ànd ak les programmes de Feeling Dakar TV ñu ngi leen jaajëfal bu baax di leen gërëm di leen sant di jaajëfal également ñu ci diwaanu sous-région bi ak les 14 régions euh, Sénégal sans exception boobee eh, li ci gën a fës bokk na ci mbirum eh, Jérôme bi nga xam ne rek moom ab retour de parquet la daal di eh, jëlee ginnaaw bi ñu ko déféré tey ci li nga xam ne rek moo di procureur dinañ ci daal di ñëwaat mbirum Farba Ngom bi nga xam ne démb amal na ab janook taskati xibaar éventuellement dinañu ko daal di waxtaane moom sax mu jàpp ne dana porte plainte ndaxte ni takk de duggee këram daal jàpp ne loolu ab anam la bu teggi li nga xam ne rek moo di bu ñaaw a ñaaw dinañ waxtaane éventuellement mbirum Lat Diop waaye waxtaane wàllum élection yi ak seen nouvelle coalition continue justement de naître ak euh, PDS ak euh, li nga xam ne moo di APR ak réew mi ni euh, loole retrouvaille famille libéral bi la dina ànd ak ci plateau bi ak Jawdin Diassé Jawdin maa ngi lay nuyu di am mbégte contentement di retrouver comme tous les soirs maa lay fay Bamba di nuyu aussi élément bàcc di nuyu mbokk internet di Feeling Dakar national bi ak diaspora bi yëpp. jërëjëf jërëjëf jërëjëf nuyu waa bëccëg réew yaa ñu lay seetaan di la bëgg bu baax. ak diaspora bi moom. jërëjëf devenu maintenant international dañ koy bàyyi xel di ko seetaan partout d'ailleurs donc mu ngi noonu. ah oui. mais Doro Gueye temps yi yéen a bës bi de. <laughs> Doro Gueye. <laughs> waaw ah bon. ah temps yi daal xam naa ne réseaux sociaux yi moom. Hmm. saf na si sàpp. carrément saf na ci sàpp daal élément Bart maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar élément Bart nga maye. waaw sax. naan nag ma ci wutal. waaw <laughs> élément. ah Bart. <laughs> Ah, saa wi jaawale wala Bart wax dama Bart de wax <laughs> dangaa tiit dangaa tiit ah. dinaa la wax lu tax ma juum. ah mais Bart ko fi ah Bart mu ngi maire de Dakar quoi fii fii la fii Bamba moo fi nekk ana salaamaaleykum Bamba. <laughs> salaamaaleykum <laughs> Mouhamadou Bamba. maa ngi lay fay maa ngi lay jaar di jaar Diorin bu baax. Mm. Mm. di jaar région bi mbokki Sénégal fu ñu mënti nekk fii ak bitim réew. Mm. di ñaanal euh, ñi caabi féet ginnaaw te coow seen coobare dugalu leen fa. yàlla na yàlla génne ci nu mu gën a gaawee. ñuy feebar yal na leen yàlla yëkkati ñi nga xamante ni génn nañu àdduna jiituñu yal na leen yàlla yërëm te xare leen àjjana. ba mu nag lu tax mu juum. Mm. mooy tey bésu Barthélemy Diaz la dama koy souhaiter joyeux anniversaire sama waajooju tey mooy le 23 septembre. Mm. muy bésu anniversaire am maa ngi koy ñaanal gudd fan wér. ak wérle mm. yéene gi mu am ci Sénégal yàlla na ko yàlla mottali. kàttanal ko. mu mën a réussir bu baax a baax a baax. enjoy days. pare. donc suñu toujours waaw ñu ngi koy souhaiter happy birthday le maire de Dakar. Eh. Eh, borom borom borom Mbaaw le maire de Dakar weesu na léegi. c' est maire de la nation. Ah. <laughs> non loolu yaa fa yegg quoi. en tout cas ñu ngi koy ñaanal bu baax ah wér ak wérle et puis je pense que quelqu' un boo xam ne euh, ko à travers euh, liggéey bi nga xam ne mu ngi koy liggéey Dakar bi mu nekkee a baax a baax moom la maire de Dakar merci beaucoup en tout cas Élément Barth ci euh, bile waxtaan ponk yi ñu war a waxtaanee wax naa leen ko tout à l'heure mooy birum ki nga xam ne rek moo di Jérôme Bandiaky moom nag ab retour de parquet la ko daal di déféré tey ci euh, procureur mu mel nag ab information judiciaire daal moo koy euh, dal di li nga xam ne rek moo di yoot moom Jérôme euh, Bandiaky moomee nga xam ne boobaak léegi mu ngi ci loxol takk der yi li ñu koy daal di toppee nag bokk na éventuellement ci wàllum li nga xam ne moo di escroquerie waaye éventuellement lu jëm ci wàllum détention illégale d'armes et usurpation de fonction lii la ñu koy daal di toppee ci xibaar nag mooy Jérôme nga xam ko daal di yóbbuwaat suba ci li nga xam ne rek moo di ci procureur mu xool ëllëgam waaye ci xibaar yi nga xam ne jot nañ ko tout à mooy soo moytul daal ab information judiciaire dinañ ko ubbi daal di ko jëmle ci euh, moom euh, jawrin euh, déjà ba wax léegi ñu ngi topp cette affaire finalement chef d'inculpation yi nga xam ne te nañ ko ci doodam bokk na ci li nga xam ne rek moo di détention illégale maanaam arme boo xam ne dafa yortu amul li nga xam ne moo di papier moo di wàllum papier bokk na également ci usurpation de fonction maanaam du woyoo loo xam ne daal doonul ko naka nga ko jàngatee Jérôme Bandiaky bi ah. waaw. bu fekkee ne loolu rek lañu gisagum ci moom moom bon je pense que c'est un peu léger quoi. Hmm. par rapport ak coow li quoi. oui par rapport ak coow li wala loolu rek lañu gisagum ci moom. oui donc euh, c'est un léger quoi. c'est un léger. Ouais. bon daa moo ñu gën a pousser enquête bi. oui parce que Jérôme Bandiaky c'est ay peur comme bëri na ay tur. tu et puis logement de fonction boobu ñu ko joxoon bon armée bu arme bi mu détenir ak li ñu dégg ci moom yëpp ba xam naa daal je préfère xaar leen ñoom ba ñu paree seen enquête bu bouclée quoi. Mhm. peut-être que euh, jusqu'à la fin. li mais comme ñu ngi ubbi information judiciaire on espère que enquête bi dina gën a. waaw loolu moo tax ma wax loolu quoi xam nga parce que peut-être que dama jàpp ñoom am nañ luñ téye. am nañ luñ téye loo xamante ni donc euh, dañuy sëlëmale lii quoi. ay ku daal am nga des non-dits justement am na des non-dits yoo xamante ni je pense que bëgguñu ko bëgguñu ko wàcce dans place place publique bi mu yàq seen liggéey ko mu yàq seen liggéey mu yàq seen liggéey quoi. surtout amoon nañu ay persécutions ci këram gi mu nekkoon mbuur euh, récemment ci kër euh, Farba Ngom bi au niveau de Benteñe. bon yooyu yëpp xam nga ñu tëb rek dem foofu. ñu tëb di dem sax peut-être que ni ñoom ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi chercher des choses yoo xamante ni peut-être que euh, am nañ ay piste quoi. Mm-hmm. am nañ ay piste donc li nga xamante ni mooy hmm, li wóor mooy que vraiment c'était un gars bi nga xamante ni il avait un peu terrorisé les Sénégalais quoi. Ouais. tu vois il terrorisé les Sénégalais quoi. te bëri woon na fi ay exécution sommaire yoo xamante ni xamuñu woon kan la fal la naka la quoi kan la fal la naka la exécution yooyu doo xam nguur gi yan moyen la doon utiliser ak yan personne la doon utiliser quoi. mais est-ce que nekkul euh, loi d'amnistie bi moo tax peut le les duñu mën a poncer duñu mën a foncer justement euh, ci yenn accusation ñu teg ci ndodam. xamu nga dafa am benn réalité boo am parce que euh, loi d'amnistie bi mi ngi fii mm-hmm. am na fee yu bëri da ko yóbbaale assemblée bi fi mu toll nii euh, yàlla dogal na ni tas nañ ko bon bu fekkee ni yàlla dogal na élection yu ñëw dans deux mois deux mois yooyu bu jàllee mu am nouvelle majorité à l'assemblée nouvelle majorité boobu mën nañ dindi mën nañu dindi loi d'amnistie bi te boobu war na te loolu mën na mën na fekk ñu avancer bu baax ci yenn enquêtes yi ko ak yenn investigation yi hmm. nga xamante ni bu loi boobu di daatu rek ñoom déjà dañuy fekk téye dañ li ñu war a téye ba pare ko ok je pense que stratégie stratégie boobu la nguur gi di def nii quoi pour mën a pour mën a euh, rectifier injustice bi nga xamante ni peuple bi dund nañ ko. Mhm. de deux mille vingt et un à deux mille vingt quatre quoi. Euh, Elema naka nga jàngatee également mbirum euh, Jérôme gi parce que fan yëpp ñu ngi posé wu la question à savoir lan moo tax ñu dal di ko teg loxo mais selon suñu confrère yu Seneweb bokk na ci wàllum li nga xam ne rek moo di euh, détention illégale